ci ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci xeex bi. Mhm. di ko dénoncer à chaque instant. Oh. te yow 1000 milliards yooyu di nga taxaw pour ñu leeral ko. Euh, mhm. fan fan la jógee parce que bokk nga ci ñi nga xam ne xeex nañ ko état bu Sénégal euh, xeex na ci ak yow. def na la ci lu ne sa journaliste euh, Sen TV bi mu ooyee kontaan. docteur Niang woy jàpp nañu leen ma ne ko hey jàppuñu kenn kontaanu loo ma ne ko non kontaanu ma dara parce que bi ma leen di wax ne ñu ngi sàcc xaalis bi bés boobu bu ñu leen a woon nga defee ne dina fi. c' est deux ans après moo discours ba ñu convoqué ma ba bëgg ma tëj sur des révélations le le le cours des comptes di soog a génne résultat bi parce que loolu amul njëriñ loolu amul njëriñ cours de comptes li muy def deux ans après di ko génne kenn di ci te ay ay coñcoom <laughs> d' donc système boobu déjà ça ne nous arrangera rien di nga fekk waa ji lekk ba suur ba investir fi muy investir. jël ay turu xaw ma ko juddoogul sax def ci ubbil ko compte boo demee après pour rattraper xaalis boo foo koy fekk d' accord il nous faut quelque chose de xaw ma nu ñu koy wax sax on parle de police de euh, de proximité hein il nous faudra une de proximité. il nous faudra une gestion de comp de de de proximité ni ma lay waxee madame tey boo joxee samedi naan dix mille francs bu la jëndalee bu la jëndalee yàpp valeur bu cinq mille jëndal soble valeur bu deux mille jox la ko. doo ko bàyyi mu dem de parce que y a des critères boo joxee nit ki dix mille francs bu demee marché ñëwaat di nga xam ne li mu jënd ndax mën na dix mille wala dix dix mille foofu ngay commencé mais boo tëbee dix mille bëgg di jàpp ay nit sur sur un million di jàpp ay sur un milliard day fekk dootoo fekk dara te actuellement la système de gestion de la comptabilité am na ay système d' alerte parlant d' alerte même comptabilité foofu dafa may alerte booy gérer mburu pour cinq cent personnes mburu di jar euh, vingt cinq francs <laughs> xam nañu deux cent cinquante mille euh, ku la defal euh, kudd amoon nay kudd sax yu ñu doon jaayee ñaata amul kudd wax ay <laughs> basang <laughs> yi ñu facturé woon ñaata voilà loolu yëpp te te loolu yëpp nit ki mën ko def moom kenn parce que comptable bi secrétaire bi muy liggéeyal rek dina xam ne kii mais man sama patron bi fi mu marqué kuddu kudd cent mille ah fi mu marqué basang deux cent cinquante mille mënul dem te elle n'est pas tenue par le secret médical comme nous dina ci waxtaan ak keneen dina ci waxtaan ak keneen pendant le Covid ki doon dem banque di jënd di retirer cent millions par jour ah bi ko euh, balaa ko Cour de comptes di xam Sénégal yëpp xamoon nañ ko Sénégal yi xamuñu woon ne am na kenn kuy dem di retirer cent millions euh, cent millions par jour dans une banque ah kooku on n'a pas attendu le Cour des comptes pour le savoir Sénégal benn benn bopp la ñëpp famille li nga reere démb bu la bu ma neexoon tey ma xam ko donc am nay euh, instrument ay outils de gestion yoo xam ni euh, déjà un chef d'entreprise sax dafa koy am waxatuma laa l'état l'état tey mën na am di ay outils bii gën a fonctionnel def même une puce dans un billet de cent francs <laughs> ay puce xam ngeen puce ah puce de localisation même billet de <laughs> billet bu muy joxee dans un projet mën na ci def puce xam ne billet bi jaar na fii dugg na fii ah bon je donne quand chose de fictif mm-hmm. mais boo jotee mille mille milliards vingt neuf milliards. nga koy uti mu dugg ci keesu état bi. mais mënul génn te te kenn xamul dërëm bi fu mu jaar. d'accord mais ñi war a contrôler ñëpp day fekk nag ku nekk ku nekk jot na wàllam. donc animu ça va faire deux ans bii depuis bi ñu ko révélé de. ñaata moo dugaat ñaata moo dugaat te bi muy dugaat sax xam nga lu tax mu dugaat ah bi enquête bi pour que enquête bi am rek. c'est parce que d'autres organismes internationaux sont allés voir le Macky lui dire que ñun tamit ñu doo wax ne sa waa sa population dañu sonn ñu dem jëli sunu xaalis pour dimbale leen parce que ñoom ils ont des populations qui leur rendent demandent des comptes hmm? yow FMI bi nga jëlee xaalisu américain yi euh, dem jox ko Sénégal mais sa population américaine dañ lay laaj euh, lu tax nga jël sunu xaw ma ñoom 700 milliards 700 milliards la ñu defe naa. 700 mm-hmm. yi nga dugal au Sénégal mais wax ñu fu mu jaar. parce que loolu moo tax ma ne tout reviendra demain à la population et c'est ce qui s'est passé déjà pour les élections de Pastef am na temps ñu doon waxal ñu naan yàlla mooy yàlla mooy élire yàlla mooy def lii yàlla mooy def lële ku yàlla dina wax yaay nekk président yaay nekk président ah bi yoon amul le changement bi yoon gis nga c'est des Sénégalais qui sont ku nekk yeewu yor kartam dem taxaw ñu voté benn sëriñ waxu ci benn sëriñ moo ci wax taxawul kenn kenn dégluwu déggoon na am nga déggoon ngeen am na sëriñ bu waxoon ne ki ñu war a woteel <laughs> bu leen <laughs> donc muy noonu tout aussi dépendra un peuple un pays un état dépend de sa population mm. bés ko sa population bëggee Macky jóge fi Macky dafa jóge bés bu population bëggee Wade jóge fi dafiy jóge bés bi population bëgg ne euh, waa Pastef dañuy ñëw par Diomaye euh, et Sonko Sonko égal Diomaye Diomaye égal Sonko moom la ñu mujj am tey bu population bëggoon tey dërëm bañ a génn ci benn kees gardien bu banque ba sax te def ci jóg gardien banque bu la gisee nga yor benn saak di génn <laughs> mu ne la Matar foo jëmee xaalis bi ah journaliste yow foo foo jëlee dégg naa reteer nga fi deux milliards mais euh, Matar wax ma foo jëmee xaalis bi xaalis bi sama suma xaalis la sunu xaalisu Sénégalais yëpp la. foofu lay toll moo tax am na pays yoo xam ne boo booy jënd mburu sax nga bëgg a jaar ci kanam kanamu ñeneen ñi day wax delluwaatal ci ginnaaw. koo mën a nekk nag <laughs> gis ko ci fii Sénégal gis ay xale di di nga gis ko mag jaar fële ñëw <laughs> ñëw ñu jaay ko mu dem kooku mën na ko def dans certains pays d'accord si mburu rek laa la wax ah, waxtuma la nag ci ay milliards yoo xam ne ku nekk dafa ñax cotiser euh, fay kii ñu def ko ci benn kees euh, tous les jours nga dégg ne sax benn carte bleue xaw ma benn ministre dem na jënd na ci xaw ma euh, benn cadeau jabaram sax dañ <laughs> dañ koy wax ne ko delloo xaalis bi wala mu démissionné état prochaine état boobu nag la boobu la ñu war a mën a am suba ñu xam ne ku nekk déjà euh, alalu alalu réew mi moo ci ku nekk def ci war a jóg te kooku la ñu amagul on a l'inverse est-ce que vous savez qu'on a mm. du sa xaalis dañ boo jógee ci dara ñu ne lu ci sa yoon du ngeen ko dégg mm-hmm. xaalisu xaalisu xaalisu mbo nu ci koy wax sax am na benn moom ah, moomu la xaalisu xaalisu mbooloo la xaw ma xaalisu alalu voilà dañ lay wax ne alalu mbooloo lu ci sa donc alal mbooloo foofu la ku nekk war a mais comme nit yoo xamante ne laal nañ ci xaalis Covid 19. waaw kon avancement mi ngi ciy am jàppoon ni tamit xaalis boobu amaana dina dina génn. waaw mais bi génn na. ah xaalis bi est ce que troisième année de. Ah, mais ñu ngi ci ay enquêtes ah, ñu ngi ci ay procédures mais enquêtes yooyu laa leen wax ne moom jaru boobu ko ñooñu ñooñu jëloon xaalis boobu. Hmm. inspecteur d'impôt yi nga xam ne. sunu président bi ak sunu premier ministre la ñu bokk mënoon nañu dem gaaw euh, jëli lu jëli lu ëpp li mu jël parce que ku ci nekk dañuy lay bàyyi nii ngay dox rek moom bu loo neexoon tey. bu ñu la mm. fayal impôt ci sa montre bi fayal impôt ci sa oto bi fayal euh, xaw ma déclaration ci sa <laughs> xaw ma <laughs> même ay mèche sax defe naa war ngeen for lañ leen ci fay looy impôt parce que dégg naa am na mèche yu cher non madame <laughs> donc gis nga bu leen neexee vraiment bu ñu xamee ni yow sàcc nga te ñu bëgg la topp di nga andiwaat xaalis bi te doo ko tey.